faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu la ñaan yàlla naatal xarnu bi noo ngi deeti faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci musawaar ma nekk marwata ak safa ak xaqi xamdi mu ngi fi mais li mu def nii kontaan nañ ci trop kontaan nañ ci ba ci kontaan ñoom ñu demee ba Serigne Moutaga yow yónnee fii xaalis pour jox sama doom boobu moom maa ngi koy sant gërëm ci gërëm euh, murit ñëpp si Jóob mi ak ak seen baay ñoo ak ak seen xibambaam ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem murit yëpp ngi tuub tey rëccu bakkaari ñu jóob balu nu bay du nu góob sëriñ bi geesul xarnu bi mbàkket dangay boroomi mboo te sa njaboot taw kiloot ñu def ma pantal pareet ay lappatoo waa xarnu bi euh, massawu leen jiital nag ñaan ñaan gi ci boppam moo ëpp doole waaye tamit teewul ñu firndeel yéeneem ci loo xamante ne bu ngeen ko dina leen mën a dimbali ci pàcc bi waaw <laughs> waaw kon ok waaw waaw nañ ko teg sa loxo mën a fi ok un million la yoo xamante ne ngir jàppale ko ci wàllu paj mi Oh, oh, boo gisee ma ne tamit eh, nga jox ko imaam ah nii mooy <laughs> suñu imaam parce que bi ñu ñëwoon hmm. eh, kaddu googu dañ fi bàyyi hmm. dañu bëggoon mu am ay témoin témoin yi si kaw lu rafet li di ñu hmm. nekk di di di dox eh, pour présence imam ak délégué de quartier ñoom ñoom ñu ngi fii te ma yëgal li ko biñ leen ko yëgali nag bi ñu ñëwee tamit loola taxoon tamit ma ne remise bi mu jaar si imam dañ koy symboliser voilà juste moom dogal Ousmane ko symboliser ba comme mu ngi nii daa mel ni ci su loxoom la jaar waaw <laughs> kon nag euh, sama wax nag du gudd trop parce que imam ak délégué de quartier ñu ngi fii ñoom ñoo ñu représenté ñoom lay bàyyi ñu wax. dëgg waaw kon nag bu eh, sama kaddu lu tax ma ne du gudd remerciement rek laa ci am. dëgg di leen di remercier wu si taxawaay bi. Mm-hmm. Eh, kilifa gi tamit ay ñaan la am si moom. ñaan wee mooy lan yàlla nañu ko yàlla yeggal si kanam bu lool. waaw ñaan yooyu la am si moom. Mm-hmm. Euh, parce que man ci wax loo xamante ne moom lu koy euh, li koy delloo na wala leneen mm-hmm. waaw ñun suñu suñu war mooy di koy talal loxo mm-hmm. di koy ñaanal toujours mm-hmm. parce que tey ñoom la ñu gëm ñun ñooy suñu kilifa yi ñooy suñu njiit yi waaw kon nag bu ma amee wax jigat muy loole bu mbégte doon am tey ci quartier bi dañu naan am nañu lu raw mbégte bu ñu amoon ay milliards dañ leen ko war a terale tey bu ñu amoon ay gilee maki nag wala lu ko gën sax dañ leen ko war a terale ndax gëm nañu ni ba ngeen jógee ba tey jéego bu ngeen jéggi tànk bu ngeen dëgg nokk gu ngeen nokk yàlla da koy bind mu yiw waxuma ko yonent bi nee na jullit yàlla ngi nekk ci ndimbalul jullit fekk mu ngi nekk ci ndimbalul mbokkam def na ko te loolu moom moo am solo ndax nit boo ko jiitee doo toog ni njiit li mais da koy war ni ko maa la parce que ku nekk xam na si cité avion sori na ruqe na kon ka nekk ca Touba di la yëg bu dee gor nga yëg war nga koo yëg fitna nag comme dañu ne day nelaw yàlla yont bi nee na rëbb yàlla rëbb na ko koy yee bu yeewoo il faut day laal ba laal ñu waru ñoo xëy bokkuñu ca alxuraan a ko wax nee na bu leen yee fitna ndax bu yeewoo day laal ñeneen ñu ca bokkul moo di waral tey jëmb jigéen di ko sees waaye tey def mel na ne bis ni ko tey bànneex la ci moom loo tax yàlla na ngeen di bañ dara fekk dafa gën ci yéen ngeen di bëgg dara fekke na gënul ci yéen jëmm yu tedd yi tey xalifa bi yebal leen yëg ko moom xam turam bu fekkoon lii amul woon duñ ko xam est-ce que loolu du yokkute est-ce que moom loolu du or nouvelle orientation ci moom bu bees boo xam ne bii war na am lu mu def ci moom loo xam ne bu mu jógee war na ne xam du xele mais xelee kus lëf la war na xam ne réew mi soxna ko ëllëg waaye war na xam ne diine ji soxna ko soxla woon na ko ëllëg ndax ku mel ni sëriñ mu taqaa Mountakha ayyadahu llahu wa nasarahu mu xalaat la bu dee xel nga boo fi jógee bu dee am nga xel gor nga boo fi jógatee amoo def doo def def lu ñaaw njàng mi lii nag li ngeen di dox ak li leen sëriñ bi yebal lépp njàngaleem alxuraan la ndax jullit mbokk mooy jullit bi ci des alxuraan daf na ngeen dimbale ci mbaax ak ragal yàlla lii mooy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla bi ci des mooy bu fekkente ne daga taxawee même mission bi yonte bi taxawoon di ko dundal alxuraan ak sunna taxaw mission bi Cheikh al Xadim radiyallahu ta taxawaloon di dundal alxuraan ak sunna parce que ni ngay njëkk a xamee ni nit ki moom la mooy na yonent yi doon defee mu defee noona nu yonent yi doon defee mooy dimbali ku néew doole yonent yàlla Musaa lu ko teg ko li ko dal dimbali ko néew doole xetful foo dóor ci ko waral dimbali ko néew doole yonent boo fekk mu am problème rek dimbali ko néew doole moo ko teg kon ku yor seen mission da ngay dimbali ko néew doole kon sëriñ bi won na tey ni Sénégal won na julli yëpp adduna bi ni man maa fi dund maa fi maa fi taxawal Seydina Muhammad alayhi salaatu te it na ko Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu bind bu bëggee woon cim njàngam ak ku bindam ki yaram mu koy doxale noonu loolu nag ku mu doyul dara dootul doy bëgguma guddal ndax xam naa ne am nga yeneen mission waaye kon damay yendoo def tey conférence ndax mbégteem xol dafa am solo ci nit te nag lii lañuy lii la lii lii mooy julit lii mooy julit tey ku nekk eh, xëy na moo ko bëggul noonu waaye wallahi kon koñ koñ bi tey dañ leen di teeru sargal leen bégal leen bàkk leen bala ngeen a dugg si wan leen ni ngeen lii na maanaam lii ngeen nekk julli yëpp ko dund tey bu ngeen demee ci turu si de avion day ci turu wakaam gépp su ma neexee ndax bu leen neexee ngeen dugg wakaam laaj imaam Jaw boo demee wakaam gépp a ngi koy bége ndax tey mel na ni ñëw na wakaam tey dinaa ko wax maanaam communauté mu yi fi nekk yépp bu soobee yàlla tey lii way mooy wane ci màggal gi noonu li ñuy sant yàlla suru quartier bi amul tijaan amul murid amul xaadir amul layen amul daay amul dara kere bi ñuy dem Touba jigéen ñi association jigéen les femmes obéissantes alxaanetaat ci jàkka ji dañu génn une forte somme jënd ci ay masque nangami masque ak xaalis jox ko séddale ko dawaayir yi nekk ci wakaam ba ñuy dem Tiwaawan ñu def noonu bay def nangam li nekk ci jàkka ji boo demee di nga gis ni mu mel ñoom ñëpp ñoo ko liggéey loolu koy mbégte mi ñu mbég daal ne ko yëg gi mu yëg ni cité avion am na ndax fii sëñ Saliou dafay liggéey radiyallahu anhu dafay liggéey liggéey bu rëy ndax ba ñu war a yëkk cité bi tey daf am nañu def délégation def nañ délégation dem si si sëñ Saliou ba problème amee def nañ délégation dem sëñ Mansour waaye am na sëñ Saliou tibboon jox ko ne bu ngeen demee sotti leen ko waaye booba tey jàmm rek la ñuy am bu ngeen see wasala bëgguma ko ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Moustapha Diaw eh oui sëñ bi déedéet déedéet jërëjëf jërëjëf jërëjëf di euh, gërëm di leen gërëm dolli gërëm loo xamante ni wax fudd yàlla ñu ngi koy teg ci loxo euh, monsieur Diatta mi mu mu gërëm leen ko ah di ñaanal sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla yàlla fiq fan wi may ko wér gu bare bare bare bi incha allah ba lii wax fa dëgg yàlla nga xam ne moom la taxawal nii mu jëmee ko kanam lu yàgg yàgg yàgg incha yàlla mën loo ko ko loolu daal moom lañ ci doon wax fu gaaw comme ni ko imam waxee rek wax nañ ne cité bi tey kontaan nañ responsable moral xam naa ko waaye damay confirmer ak fu aatu àggale wo bu amul ku yeeyoo di ko jiin ci télévision rajo yi ñëpp ko mettilu nag ndax dañ ko war a defal ay journée dëgg la si aatu waaw waxuma waxuma tey wax pour mouridisme de mais pour li mu liggéey pour l'humanité ñoo xam ne tey ñu ngi yor yor ay société mm-hmm. yor ay kër mm-hmm. yor ay dëkk